yàlla màgg fii bon waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdallah Ndiaye nekk coordonnateur Sénégal 7 vers Hann Bel-Air euh, lu waral tey bésu reboisement reboisement bi euh, le Sénégal 7 vers dafa nekk benn mouvement communautaire. léegi suñu bii mooy ñu setal dëkk bi en première en secondo ñu ñu naatal dëkk bi loolu moo taxoon ñu initier euh, journée de reboisement bi nga xam ne tey le seet la tey la mooy particularité euh, journée de reboisement bi euh, gars yi dañ daan dañuy wax VAP vacances agricole patriotiques loolu am monde rural lañ daan def léegi nag danoo bëgg andi benn concept bu bees boo xam te ne en monde urbain kon ko ñun amuñu ay tool ñu mën a bay voilà bu ko defee dinañ mën a créer suñu suñu modèle bopp ba nga xam te ne dinañ mën a def VAP à Dakar cest à di tey jii nii suñu ay coin ak suñu ay tuuti espace yu ñu am ñu def ay reboisement benn yan façon garab ay arbre fruitier yi la ñu la ñu bëgg a reboiser est-ce que tey seen bés bi euh, da ngeen ko jël wala dafa coïncider dafa coïncider wu ak euh, li son excellence wax te ni na ñëpp seetal seen gaaw. waaw ñun ci ndigal lañuy ñuy tay suñu suñu sunu kilifa numéro 1 moy le président de la république aussi ñun mom lañuy top donc mom mo woté né Sénégal Sénégal 7 moom moo woote tamit Sénégal vert. kon ko démb woté Sénégal 7 ñun ñoo ngi yor euh, bale ak rato yi ak pel yi gannaaw ba ñu dëkk bi nak légui dañu naatal dëkk bi voilà c'est une logique bi la voilà. lan prochaine étape. la prochaine étape d'abord le projet un projet évolutif parce que nous voulons recouvrir toute la commune de C'est C'est un objectif majeur pour ñu reboiser 2000 Il y a une variété d'arbres fruitiers que nous voulons reboiser mangue orange mandarine citron ak cerise goyave yooyu la que nous reboiser donc objectif bi moo 2000, 2000 arbres les étapes prochaines bi incha nous mooy en une seule journée ñu recouvrir euh, quartier yëpp donc en premier lieu dunoo def trois quartiers léegi incha allah yeneen état bi mooy euh, euh, progresser vers les autres quartiers Inchallah, parce ba nous ñuy dab à Hann inchallah, air yëpp bu ba am yeneen projet yoo xam

Wow, bi nga pour mais à une seule condition C'est la détail dire paramètres mhm. place il faut créer un espace pour mëna business ba ah bu espace pour business ba dinañ artères parce que ñëpp xam un artère du para su kay. Né dans les pays occidentaux artères yi bu ñu fa nekkee bu ñu gis bu ñu seenee police di ñëw dañuy daw donc en premier lieu état l'état du Sénégal lu mu war a njëkk a def mooy mu créer ay marché ya nga xamante ne ñooñu dinañ fa mën a dem liggéey ginnaaw bu ñu fa demee liggéey nag après ñoom bu ko defee état mën na jël artères yooyu noonu euh, au bénéfice de la population. état bi foofu la waroon njëkk a commencé balaa muy jël seen balaa muy nangu seen ay place. waaw waaw daf dafa mel ni gars yi concerté wu nañ. Bah, si li que c'est si médias yi si loolu rek nous quoi. merci beaucoup voilà merci. aussi nous avons à tous les patriotes de Hann aussi nous euh, avons toute la population aussi de merci beaucoup. merci beaucoup. Alassane Bokar Donc, je suis le président du mouvement Domoyara. Donc, nous sommes tous réunis aujourd'hui au niveau de la commune danne donc pour euh, assister. Donc, son invitation et l'initiative de Sénégal 7 donc au reboisement, à une campagne de reboisement qu'on est en train de faire dans tout, dans tout Donc euh, c'est une initiative qu'on est en train de saluer, donc c'est une initiative qui est vraiment patriotique. Donc nous aujourd'hui en tant que jeunes, en tant que population de Anne donc on a le devoir d'assister sur ce genre d'événement. Donc le reboisement aujourd'hui, il consiste vraiment à mettre, mettre, euh, sous terre euh, des, des arbres fruitiers, donc qui est vraiment une innovation parce que souvent, en fait, le reboisement, on a l'habitude de voir des arbres qui, c'est vrai, qui font de l'ombre, mais bon, je pense qu'il est beaucoup plus important de mettre en place des arbres frichés. Maintenant, le processus, il est fait de telle sorte que non seulement on va, on va mettre en place les arbres, mais aussi il y a un suivi qui, qui va vraiment être mis en place. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette le, le projet sous une forme euh, sauvage pour, éviter les, animaux sauvages et tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on a un processus de suivi et vraiment d'évaluation qui va être continuel. C'est vraiment tout le long de l'acteur qu'on a, déjà décidé. Donc, sur la première phase, aujourd'hui, on est sur euh, entre montagne et ferraille. Donc, prochainement, on va encore faire les autres quartiers. Donc, on compte vraiment nous déployer vraiment sur tout, l'ensemble de la commune pour, vraiment essayer de reboiser au maximum. Donc l'objectif étant vraiment de mettre en place une structure vraiment de 2000 arbres donc qui va vraiment nous, nous, aider d'ici euh, des années ou voire même des mois à nous donner vraiment de l'ombre, euh, de l'oxygène, en même temps aussi des fruits. d'ici combien de temps on peut la, attendre euh, normalement, nous sommes en train de voir, mais en principe, euh, donc, ça, ça ne saurait Donc, d'ici, euh, deux mois maximum, on, va commencer la deuxième étape. Euh, donc, vous avez entendu le président de la ville parler de cette, année. vous en dites quoi je pense aujourd'hui que le patriotisme, en fait, ça, impacte à tout le monde. Hein. Donc, euh, il, suffit d'être sénégalais, d'être déjà citoyen pour, pour avoir un œil, avoir vraiment une, euh, responsabilité sur, sur, sur l'environnement. Donc, l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, euh, vraiment, l'appel du président de la République, donc c'est un geste, c'est une communication qu'on salue, qu'on salue vraiment. Et puis, vraiment, donc c'est une chose qu'on ne devrait même pas du tout attendre. Donc, tout Sénégalais, tout, tout concitoyen devrait déjà commencer à le faire de lui-même, sans pour autant même attendre en fait, ce qu'on peut faire de ce qu'on peut faire nous-mêmes. C'est ça qui est, important, mais ne pas attendre tout le temps en fait ce que l'État peut faire pour nous. Donc, salam alaikum. Je suis Alassane Bokarjam, donc, président du mouvement Domira donc tay nak dañu ñëw ñu and ak euh, Sénégal 7 Vert and ak vraiment toute la jeunesse toute la population de Anne Belair pour ñëw vraiment def ay jëmbat manam jëmbëtu garab ak gàncax ci biir dëkk bi donc lu waral ñu def ko nak ndax té seetlu nañ li dëkk bi bari bëriwul ay garab donc euh, mu nekk initiative bu nga xamanteni manam dañ koy dañ koy rafetlu ndax té tay euh, garab dafa nekk lu nga xamanteni dafa am solo ci doomu ndax té dina la may ker dina la may euh, oxygène dina la may en plus tamit bu màggee aussi dina la may dina la may dina la may dina la may euh, ay fruits maanaam lu nga xamante ne moom moom duñ ko mën a jëfandikoo donc moo tax nag loolu mooy particularité wu reboisement bi ñuy def tey parce que dañu doon faral di gis ni ay reboisement yu nga xamante ne ay ay garab rek lay doon yu amul benn benn meññeenteef waaye garab yu ñuy yu ñuy jëmbat tey ay garab yu am ay meññeenteef la donc ay mango ay ay euh, orange ay ay goyave ay limon merci. fii kañ la ñu mën a xaar beneen bon defe naa ni tey objectif bu ñu am mooy minimum ñu def euh, du junni garab ci commune de Hann Bel-Air bi donc euh, dañuy yaakaar ne daal vraiment fii ak maximum deux mois ñu commencé vraiment deuxième étape bi ñu ànd ak vraiment suñu partenaires yi ñi nga xamante Sénégal 7 ñooy euh, vraiment population Hann bi yëpp pour ñu mën a liggéey loolu. ba fan ngeen jàpp ni partenaire bi war na bon partenariat je pense que c'est un partenariat bu nga xamante appelé bu amul app la amna amna début à notre commencement waaye amul fu nga fofu la en tout cas nous, mom képp ku ñu woo rek ci liguey dëkk bi ci lu nga xamante ay activités citoyennes activités noble donc ñu on est prêt vraiment à accompagner ndax doomu yaraax la woté woté parti politique. merci. bonjour tout le monde. Je me nomme Serif Ousseinou Sow. Uh-huh. Je suis le coordonnateur responsable des volontaires de Greenpeace Afrique au Sénégal. Uh-huh. Votre participation à cette journée donc, euh, comme vous l'aviez dit, suite à l'appel du mouvement Sénégal 7 et Vert, donc, euh, nous sommes déployés pour venir participer au reboisement. Pourquoi participer au reboisement Parce que si vous, si vous voyez, à Greenpeace, nous avons des campagnes. Nous évoluons sur la campagne plastique, la campagne océan, la campagne forêt et aussi euh, la campagne énergie et climat. Donc c'est dans ce sillage que nous sommes là pour participer à cette activité qui est une activité vraiment noble. Et il y a un savant qui disait, ne cherchez pas à ce que vous pouvez faire pour, à ce que votre pays peut faire pour vous, mais cherchez à ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bon, une, bon, par rapport à nous, parce que vu que nous sommes des ambassadeurs de l'environnement, donc euh, c'est une fierté de pouvoir partager cette journée avec euh, le mouvement Sénégal 7 et Vert. la Magnitude de Serif nous Sow nek coordinateur responsable des volontaires ci Greenpeace Afrique donc bu ngeen xolé Greenpeace mom moy ben organisation bo xamanteni organisation indépendante bo xamanteni ci gàncax lay yëngu quoi ci la protection de l'environnement. donc lan la leen def boo len euh, di participer ci genre ndaje yu mel waaw contenté bu baax parce que bu ngeen xolé depuis un certain moment ñun ci li lañuy ñuy yëngu ñu ngi yëngu ñu ngi dem ci géej gi ñu ngi dem ci gàncax gi ñu ngi ciy xeex bu baax a baax parce que bu ngeen xoolee démb ñu ngi woon ci benn événement boo xamante ni fële la amoon au niveau de Soumbédioune mhm. donc euh, avec euh, le le benn association boo xamante ni ñu ngi ko tuddee B la baie de Soumbédioune mhm. foofu tamit dañ fa doon organiser benn activité de nettoyage biñ ko organiser ñu ngi doon sensibiliser aussi population bi di leen wax ne nañu protéger géej gi parce que géej gi buñ ko protéger wul rek du baax day indi ay gàllankoor ci mhm. suñu réew quoi Merci beaucoup.